mi borom màgg ak teddaange wa noori ak yàlla mi borom leer wal xëyri ak yiw wal ifdaali ak ngëneeli kullihim yépp nag salaatu rabbi xewal suma borom alal muxtaari yàlla nekk ci ki ñu tànn sil xikam mi kay borom xam-xam wala aali ak ñu ñam was tax ak saaba mi axalul hadi ñay borom gindee wasiyee mi ak jikkoy rafet wala ma sori ma ne leen wa kullu bépp mbir minar rahmaani mu ngi jógee ci yàlla seen xidami kay borom jibi ko loo gis rek ci suñu borom bi tabaraka taala la jógee ma ne sax bi fadlihi ci ngëneelu suñu borom nit tawfiqan laa xamee ak jàppandal laa xamee ak dëppale maa rafami ànd ca mbégte nag te mooy dajeeg gi ma dajeeg sëriñ bu mag bi le ma ne waxam di seyxi sant sama sëriñ bi le mi ak tulaa bi mu jógee ci taalibe yi kullihim ñoom ñëpp loolu kat fa waajibun dafa lisaanihim bu tukkee ci seeni làmmiñ waaye jëf rek doyut wax rek doyut wax bu ànd ak jëf moo doy te jërëjëf lu muy gàtt-gàtt ko dégg rawatina li sëñ bi jëf moo tax ma ne leen jasaa'ukum seen ak fay yéen samay say xanaa suñ sëriñ ci jëf wala waram mi ak jox ko ngeen ko mën a fekk loolu de mooy fay borom mooy faru borom njëkk wala ak ko dafay fay sëriñ bi ci jëf ak ci wax ak ci hormaat fu mu fekk ndax sëriñ bi luy liggéeyam mën na la wax xaadimul Moustapha sëriñ bi ne day liggéeyal rasulullahi bil fii li ci jëf wal kalime ak wax day jëfandikoo sunna si rasulullahi di jàngale sunna si rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ma ne leen wa say xinaa ak suñ sëriñ bi nga xam ne Ahmad Tijaani mooy Seydina Cheikh sëriñ radiyallahu anhu sin faq bi kay borom ngëne li màggee sëriñ bi ci ñaar ñi rekk la nekk seen tool di bay guddi ak bëccëg ma ne ah nii li ma namu ci kii may wax mooy Ababakarin kuy Ababakar mu ne la saa xayri mooy borom yiw wal fahmi moo am dégg-dégg bi fan la amee yiw ak dégg-dégg mu ne la bil li ci wax wal fiili ak jëf wal ikraami sili sami ak teral borom maka képp ko am cër soo ñëwee ci yow mu delloo la sa cër ba jox la loo xam ne xam nga ne yeggu la fa te loolu yëpp day tegtale maqaamaam day tegtale mbaaxam di tegtale yoom te am na ci pédagogique am na ci itam li nga xam ne mooy ak xereñ ak hikma bu ma sëkk nag ma ne kii nag abo Moustapha mooy bàyyi Moustapha suñu xel mi kii mooy borom xam-xam bi wu chien mi ak jikkoy boo taale ba yomb de déwén rek ma am ci moom ñaar fukki at ki kii taral ko foo toll